ñaari yoon. ah ci boppam moo ko njëkk a jox favori bi Siteu moo ko njëkk a jox favori bi bon nag tey su ko ko nit ñi joxee itam cëram la rek ndax moo mag Siteu cëram la ñu delloo ko ko waaw yàlla nag moo def li ko neex jox sita ndam jox Papa defet loolu yàlla la neex mu def ko waaye jaam bi mënul may boppam Tafa Sow Tafa xaw ma Papa Sow mënul xañ boppam Siteu mënul may boppam. bu nag yàlla ñëw ndogalam bu nag dañ koy nangu te ñaanal sita mu dem ak carrière ak jàmm ak yoon bu leer Papa Sow itam continuer carrière ak wér ak yoon bu leer. ma ne man démb dama matu te ëmb te ëmb ma dama matu te ëmb ma démb dama matu te ëmb ma bi ma ñëwee bu langaw ba mu langaw ma dama ko ne tey ma wasin ndax li ma matu démb daf mu indi ko doom doom bu am <laughs> doom bu ñu ëmbul fa ma wasin ko démb amul lu ma dajul. naa sama dom bi sama tension bi monté mënuma dara añuma sama sama dom bu jigeen sama dom bu góor ma yor mënuma mer ah, mënuma tay dem baxalu salum la nam jox ko 3000 man dugg baxalu salum barke seex na ama serif ak combat cité bi dugg sama gemi ba jonne fi yàlla tey xam nga ci ngon gi pon jënd mburu fukki ponse dal di lek sama bibi bu ne ku ci fess ndax démb ci man dama ko woy yaayam ne ko maman, ma man ya woy yaay ya di wax ak man ko ci saar yaa ma man yow man tuma wax sama tasim dafa mënta mo mënu ma mënu muñal awa muñal muñal muñal muñal leg yalla sotal lepp barke dem demba aljuma dama xey rek taxaw ak penku manoko ay eh, jant bi so ya jant bi aljuma ji lo lo lo lo lo lo xey tay ci ta ay wa yalla nako suma tut bi yalla nako yalla may ndam ma defal nak nak sarax wo xali manako ku jël na nga yalla sita am ndam xali dañ ma top ci bundu kay ba ca bidigi kër ga ba ca wañ ba may ñaanal rek diko ñaanal rek ndax dom dom dom la rek ku ko jur ak ku ko jur dom la ba duggé duggee gën ba léegi ñaanaluma si tade wa jàmm gën lay ñaanal mané yal na leen yalla may ndam yal na leen yalla bu ngeen bëgg ci àddina doomu jàmm gën yal leen yàlla defal jam. Sitade tade talibé rek la amana ni ko ni leen sita def lañu def sita ci sita mom fo tollu day naane xaritam yi ñi muy andal da ngay gëna jël ñi muy andal gën leena fonk ne moom chaque jour la may wax ne yaay ñepp képp ko xam rek xam nga ko ngir man rekk gën koo téye comme ni nga ma téye waaw euh, te loolu yàlla dogal na daf ko fekk ci man doomu jàmbur mu ma gënal sama doom ndax doomu jàmbur sooy seet ne te yaay ki yaayam nekku fi nga bañ mu jooy dara doo ko teg lu metti te doo ko def lu naq doo ko wax lu du ko naqare kon nag li ngay war a dund ak sa doom moom mooy dund ak doomu jàmbur te doom ñi nag nu mu munti toll su ñu ñëwee rek mën naa leen téye Siteu su amee combat ni muy dundee noonu lay dundee su amul combat Siteu mënu la rejeté kenn ku ñëw rek bëgg naa toog ak yow su amee lum la defal defal la ko su amul waxtaanal la ba nga fàtte li nga uti woon waaw loolu mooy jikkoom daf may naa ne yaay bu ma nëbbu ku fi ñëw te nekkuma fi nga xam ne nekkuma su ma fi nekkee nañ woo ma téléphone ne diw ñëw na waaw ma wax ak moom loolu moom kombaam ak ñàkk kombaam nit moom wax dëgg yàlla def ko jëf jëram ñu jóge jàmm gën gi dem stade li ma gis foofu démb nee naa la Siteu mënut a fay waa jàmm gën yal na leen yàlla jàppale ba Siteu toog mu mun leen a fay bor yal na fi def loo xam ne doomu jàmm gën bu ci leen a gis sa bopp loolu rek lay ñaan Siteu keroog bi yaam jógee Màkka damaa mujj jàpp ko ci suñu di ko xëcc mu ne waa Tartinda yéen xaw ma Tartinda loo xam ne naka la gaa yi tudd mu yóbbu leen def yóbbu dem fale dem leen fale mais bi ñu bàbbee ko ba ñëw ak Siteu ni mu leen accueillir mën na ko bàyyi ñu ñu ay tijaan la dem leen fale yéen murid mu ne kenn mu leen a téye xam nga loolu ci mbégte la bokk ak sant yàlla bu baax di ñaan yàlla Siteu moo xale yi la kenn mun a xam asam Siteu fii jàmm gën kenn mun a xam asam ku mu tase mun naa ànd ak yow lonk la ci loxo dem yow kon ko xam nga ko amul maas amul xale amul mag amul ndaw ñëpp la defal ñëpp la àndal. Papa di ko sant rek di ko sant. di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm fi mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla àggale te mu xam ne lii métier la lii bu mu ko tax a bàyyi na continuer li muy liggéey na continuer liggéeyam jaam bi ak looloo ànd su doon maye tey kon bu muy jóg këram day naa ne maa ngi indi ndam bi comme ni ko Sita defee yàlla nag tey Sita la jox su subaa moom dina ko jox na gën a góorgóorlu na dëgër laay ndax lii la opté ne mooy liggéeyam waragul a bàyyi na na gën a dëgër te ñu ngi koy baalu àq bu baax ci coono bi waaw coono bi moom coono làmb moo melee noonu coono kese la waaw coono kese la ñoom ñaar yëpp ñu ngi leen di baalu àq ndax su ñuy daw rek waajur yi ñoo tax ñuy daw. bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari nay baree bari te nay baree bari ndaanaan laa ñaari